barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan usuf alayhi salaatu wasalaam makka la wàccee téeméeri aayaa ngi ci fukk benn suratu yusuf lu wutewul ak saar yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon maanaam dana nettali lu bari ci ay qissa waaye li muy nettali yépp li muy bari bari ci benn qissa lay doon bu aju ci Yuusuf min tuddee saar wi saar wi daanaka solo Yuusuf moo ci gën a bari ni mu ko nettalee it ma koo nettalee benn xissa ci wenn saar andi na ci itam ay kawtéef ak i kéemaan yu jar nit waaru ci li nga xam ne mooy feeñ ci xissa bi mooy bijj ji si doomu aadama yi ñu xool ci kawnu bi ba ci seen borom dana ci feeñ ay waaru ñeel dama dama dana ci feeñit xarisatul xubb nit ak li koy xiir ci li mu bëgg dana ci feeñit li nga xam ne mooy fiir mbirum añaanit diggante nit ak nit ak mbokkam dana ci feeñ pexe ak wuruj dana feeñ ci xissa bi dama dama ni muy gaaw woyoo ci bëgg-bëggi bakkanam ndax bëgg-bëggi bakkan léeg-léeg dafay muur am xel ak it nag soo toppee bakkan ci yi mu bëgg réccu ni muy gaaw a ñemee ci ñëwee ci yaw gannaaw ga loolu lay nettali Yuusuf ibnu Yaquub Yaquub ibnu Isxaaq Isxaaq ibnu Ibrahim Ibrahima ibnu Azar من أصل عبري ولا من أصل من غاوخ بابلي يوسف يعقوب دفا دلوون فرات سيتي اي مامم ak i najaayam najaayam may ko ñaari jabar ñaari doomam ñaari doomam la ko may yu bokk ndey ak baay yooyu lañ may yàqub doom ju ci nekk baayam may ko benn jaam bu jigéen bu koy liggéeyal yaquba ñëw denc ñaari doomi ndey ya dencaale seen ñaari jaam ya mu ñeent ñaari jabaram ya nag kenn ci ñoom moo jur yuusuf ak binyamin kenn ci ñoom ñoo jur rubil ak yahuza ak ñenn ña ñeneen ñaari jaam ya ñoo jur yeneen i doom ya asabiya tàmbali nag doom yaquba yi yemaleetuñu leen yàlla jox na yaquba fukki doom yu góor ak ñaar ñépp màgg mat mu kàllaf yàlla def ñépp ay ambiyaw yusufa rekk moo ci nekk rasuul moo ci nekk yu nekk rasul ñi ci des yëpp ay ambiyaaw lañ alaa dibul abbas yi wax na ko nee na wa kulluhum sulaha yusuf nag yaay ji dafa yéex a am doom ba magu yaayam am ay doom yu mag yàlla door ko jox yusuf yàlla xamal yaquba ne dugune gile moo lay doon na ci gi ak nubuwa gi yaquba xam loolu nag daldi fonk yusuf lool bëggul kenn laal ko kañaan dal tàmbali ak fiiraange ak kañaan ñu daldi ne gune gii daal moom la góor gi gën a bëgg rekk xaw ma lu tax ponkal yu toll ni ñu nekk fi man lu nekk mu jël gune gu ndaw gi rek teg ko suñ kaw Yusufa dem bee tàmbali am ay fukkeet ak juróom bés bu nekk fu mu fanaan Yaquba ci wetam lay fanaan mu daldi yeewu ne bàyyi gént naa lu yéemu mu ne ko lu mu doon mu ne fukki biddiw ak ñaar ak jant ak weer ñu sujjot ci sama ron tànk yi ne ko bu ko nettalil sa mag yi de ndax danañ la añaanee te loolu mbir mu rëy la bu ko wax kenn mu ne ko waaw ñu toog ñu toogee benn jëmmi saa xale yi ne yusuf daal nañ ko sàkkal pexe gannaaw gi yaayam am beneen doom ñu dékk ko ñu ne nañ ko sàkkal pexe ndax gis nga nit ku añaan nit ku añaan li nekk ci xelam yépp moo di ne diw a ngi fii man duma am li ma war a am te nag yàlla lottul ci diw nekk fi nga nekk fi ku nekk am li mu war a am waaye kuy añaan moom day wax rek ne diw mii na fi jóge ndax su fi nekkee duma jot ci lii moo tax ñu ne nañu ko fexeel walla ñu rey koo su ko defee gannaaw ga ñun dana yiw dana nu baax waaye feeg noon fi góor gi du bàyyi kenn mu baax ah ñu ne baax na ñu ne kon nag dañuy fexe ba ab gi rek dem ak moom ci àll bi ñu demee ñu rey ko rek ñëw wax dara ñu ne ah, loolu de pexe la ñu daal di ñëw ne góor gi dañu bëggoon ànd ak Yusufa doxantu ji góor gi ne ah man de wóoluwuma leen ci de tey ragal naa ngeen dem ñëw naan ma tile lekk na ko ñu ne tilla lekk suñ rakk te Yehoosa ma ngi ci suñ biir bu xaaco sax tilla dee loolu kay du mën am ah mu ne baax na dem leen gaañe dem bañ yeggee li ñu njëkk wax mooy nan ko dóor ba mu dee ñenn yi ne quand même rey nag ëpp na waaye nañ ko sànni ci teen bi nga xam ne suñ maam yi ñoo ko doon gas bënnul amul ndox teen boobu lañ koy lañ koy sànni ñu ne loolu moo tane ñu jël Yusufa sànni ko ca teen ba ñu ne waaw buñ ñibbee la nuy wax fekk summi nañ bu bësi téye ko sànni ko ñu ne bu ñibbee ñu ne góor gi tili lekk na ko ñu daw seen gën a tila dàq ko ba jot ko dóor ko bee tila gi nacc jël mbubbi Yuusuf taqal ko ci tilla gi xeeñal mbubb mi xeet ak tilla taxañ ko nag ñëw li nga ñëw nag fekk jant baa ngay so ñu ñëw nag di jooy jooylu baay ñun danoo dem jël Yuusuf bàyyi ko ci suñu yére ya mu di ko wattu tille ñëw lekk ko mbubu maa ngi nii xamuñ dag ñu gëmam déet waaye noonu la ko tille def yaqooba ne eh li ma leen waxoon rek wóoluwuma leen ci waaye yéen seytaane moo leen rafetal li ngeen def ngeen def ko xanaa xamu leen ne till rabi àll bi yépp araam na ci ñoom ñu lekk yàpp yonent te sama doom ji wóor na mën a yénente la waaye nag maa ngi muñ muñ gu rafet yàlla nag laay ñaan mu dimbal ma dimbali ma ci li ngeen def waaye xam naa ne def ngeen li ngeen naroon rek ah Yusufa nga ca teen ba yaakaar na ne léegi dee na Yaqooba fàtte na ko am ay gaay nag yu jaar foofu ñu nga jëm ca marché Égypte ba Misra di jaay ñu noppaliku ñu ne nañu rooti ñu yebal kenn mu dem ba mu yooree baagam bi rek ba jàpp ci goj bi waa ji xëcc nag mu diis mu ne ndox la ba mu yéeg si rek mu xool ko dal di ne ah bushra ya za gulaamun eh, waay maa ko bég waay am na ab jàmm daal di ñëw ne gaa yi kii maa ko moom gaa yi ne ko doo ko moom de ñun ñoo la yebaloon nga yi ñun ñépp noo ko moom bu demee nu jaay ko ñu ñëw nag dugg dëkk bi génne yusufa ci marché bi ku ko xool rek ne ah kii jaam kii rafet ba mel ni doomi buur gaa ñi nag dajewaat ne ah am ñu ne man dey bokkuma ci moomuma ko yéen rek la woon ñu ne man dey bokkuma ci foruma ko de ñu bàyyee ko waa ji ak ñu tuuti ndax ne nañ gune gii ni mu rafetee ak ku ñëw wax loolu ku ko fi toog di ko jaay balaa jar ay mbokkam fekk la fi nga dee ñu ne kon nag waa ji ne kon dey lu ma ci nit fay rek ma jox ko ñu wanteer ko rek benn waay ñëw rek ndax biñ koy jaay bëggatuñ soxlaatuñ ko yore kenn bëggatu ko moom e Aziz Misra ñëw ne waaw yow looy jaayee lii waa ji wax ay dërëm yu néew rek lu mel ni ñetti dërëm wala juróom-benni dërëm mu jox ko rek mu jox ko Yuusuf mu yóbbu ci kër ga ba mu ñëwee mën a jabar ji ah man de jëndal naa la benn xale ca marché ba maa bëgg nag nga teral xale bi ndax xale bu rafet bu baax la te it amal na mu jëriñ ñu wala boog nu def ko sax doom ndax amunu doom ndaw si ne ko loolu de baax na Zaliqa dal di jël Yuusuf yàlla nag ne loolu dafa teg fa foofu Yuusuf ndax mu di fa yaru ba ca kanam mu jàngale fa administration ak mbiri nguur ndax dafa nar yore nguur gi kon nag na ko jàngee ci kër premier ministre bi Yuusufa nekk fa ba mat mu kàllaf ba mat góor waxtu wu ñu indee mbiri contabilité mu defal leen ko bu ñu indee lu ñuy bind Yusufa defal leen ko ñu yar ko ci liggéey boobu mu man ko nag Yusufa man na mu kàllaf rafet na yérey buur lay lay lay lay sol jabari buur bi nag léegi xelam xelam ci Yusuf rek léegi nag xamul nu muy def mu daal di ne kii daal xaalal ma bàyyi rek firaw naa ngi tukki ànd ak premier ministre bu ñu demee rek balaa mooy ñëw ma fexe rek ba jote gune gi le premier ministre bi tukki na ànd naag firaw na moom Aziz mu daal kay woo Yusufa ñëw mu dugg ci néeg bi tëj ñu jàll ba ca kanam mu dugg mu tëj jàll ba ca kanam ñu dëgg mu tëj nag ñoom ñaar rek ñuy waxtaan ndaw si summeeku nag ba dese yére yi woyof nag nga xam ne yaramam dara suturloo tut Yusufa nag ma ngi ragal bay lox mu daal di ne ko hayta lak waaye ñëwal ci man waxambaane wu toll ni yow jigéen ju rafete ni man may summeeku ngay lox hayta lak yusufa ne ko man de dama muslu ci yàlla daal di wor ndax it sama borom ni mu rafetalee sama mbir man daal duma wor kooku am na ñaari prix ci wax yusuf benn azizu misra mi ko indi te defu ko comme jaam def ko ni doomam mu ne kooku daal innahu rabbi ahsana maswaaya ni mu rafetalee sama soxwaay daal duma ko wor wala fekk boromam bi ko bind def ko mu nekk yonent di doomu yonent ñu sànni ko cib teen mu sàmm ko ba deewul indi ko fii te kenn jaamalu ko mu ne ni ma yàlla def daal duma ci teg di ko moy nag ulamaaw tafsir ñu ne zaliqa yitte woon na def ak yusufa loolee yusufa nag moom it yitte woon na loola comme ni ko alquran waxee wala qad hamat bihi wa biha ndaw si yitte woon na dajeg yusuf yusufa itam yitte woon na ndaw sa ñu ne bu fekkoon ne gisul daal yenente gi ko yàlla yónni kon dana def loola waaye Cheikh kii dafa wax ne Yuusufa yittewoo na ndaw si yittewoo na Yuusuf Yuusuf yittewoo na ba max ko ñu ne nag waaye ñoomin sawi alal jalalayni dañuy wax ne foofu maamam ibrahim wala baayam yaqub daf ko feeñu mu ragal ba tax na defut loola am na ñu ne yusufa kay yitte woon na la ndaw sa bëggoon waaye malaaka moo ko feeñu daldi ko laal ak loxoom yaram wi dal di daw am man yoom dal di génn mu ñàkk koo soxlaati yooyu yëpp ay tafasir la yu bari yoo xam ne ulama wu tafsir indi nañ ko ci walla xarxamat bi waa ma biya wante li wér daal moo di ne yusufa nit la bachariyaam googu bu ko ci yàlla bàyyi woon aman na mu yittewoo wala ndaw sa yittewoo waaye yàlla moo bàyyiwut yusufa cig bashariya yàlla moo indi ismatul ambiya ba tax yu yusuf li mu yittee woon rek mooy daw ak rëcc ci béréb boobule loolu moo tax mu gis burhaan rabbi yi moo tax yàlla soppi ci moom loolu yusufa daw ñu njëkkante bunte bunte bunte bu mu ñëw rek mu ubbeeku bunte bu mu ñëw rek mu ubbeeku bañ ne pëll ci bitti ah ñu fekk Azizu Misra ngay door a ñibbisi ci tukki nag ñu tase ci bunt ba njëkkër am na keroog ndaw sa gaawtu ne buur loo xam ci sëb surga bu bëggoon a sàkku sa jabar xanaa ñu tëj ko walla nga mbugal ko ndax kii kat nekkatul gune gu baax Yusufa ne déedéet amewul noonu moom mii moo ma dëgal dugal ci biir tëj ma sàkku ma ma bañ fekk nag am na benn doomu bay taxu ndaw si xaritu Aziz la woon ma nga ànd ak moom kooku ne ko loolu koy yomb naa xam léegi dañoo dàqante ba taxaw fii nañu seet bu fekkee gis nañ ne Yuusufa teraxlaayam gi tasee na ci kanam ñu xam ne moo jëmoon ci ndaw si buñ gisee nag affaire bi tasee ca gannaaw ñu xam ne ndaw see ko doon dàq di xëcc ci yéreem muy bañ ñu xool fekk trex gaa ngi xottee ci gannaaw ñu nekkoon kon kay yaa ko toppoon muy daw ñu nekkoon kon noonu la Aziz ne kon nag Yusuf fàtte loolu waay fàttel loolu benn fadixa benn gàcce la bu xew ci sa jabari kilifa fàtte loolu bu ko siiwal dal di walbati ku ne ndaw siiwit na nga jéggalu kat te tuub def nga bàkkaar ndax yow kat def nga bàkkaar boo xam ne bu mag la ah xibaar ba yemut foofa de xibaar du yem foofa gis nga mbir boo ne secret la bu ko wax kenn mooy bu ko wax kenn wax ko ñépp ndax yaa ne bu ko wax kenn gowul kenn nag foog mu wax ko mbooloo xibaar ba dal nay siiw rawaate na mbir mu aju ci mbirum jigéen te amee ci capital amee ca pale ba mënul tuuti mbiram góor ak jigéen ci capital ca pale ba du tuuti ñëpp dinañ ko dégg mbir ma siiw nag ñu ne naa jabari firaw jabari Aziz day moom léegi mom day jaamam Ina sakku ñu ne way mom mo ñak solo xana kuy bëgg it mën ngaa bëgg ko naw lool waye sab jaam ñu ne ko de reer te ñak solo rek ah zaliqa deg wax ji mu ne bay rek dana leen wan li tax ma def ko te it bu ma leen ko ya, dinañu xam ne mbir mi jar na ko Yusuf raxasal ma aset yi ak kaas wutal naan gu gën a neex solal yérey buur ndax tey dama ami gan def na mash wi teg ko ci taabal ji invité ay jigéen dong ne Yuusuf nag solal yérey buur te toog yow yaa leen di jox naan waaye bul génn fekk waxuma ñëwal mu ne waaw baax na Yuusuf daal di defar kaas yi defar naan gi rek toog solu nag taxaw nëbbu ci biir ñu di mash bi nag gaa yi jël paaka yi commencé di dagg di lekk zaliqaane Yuusuf axrij na génnal ci seen kaw Yuusuf ne dëll ci seen kaw ñëpp ku ci ne bàyyi li nga doon def di ko xool ndax na mu rafetee ba ku nekk sax dagg nga sa loxo ak paaka bi ba mu nàcc te yëgoo ko yaa ngi dagg rek di ko xool rek téen nag di dagg rek Yuusuf teg naan gi teg kaas ya Zaliqa ne ko dellul sa place mu dellu place ñu delloo si rido bi saliqaani xool leen ku nekk ci dëgg na dëgg na loxoom ñoom ñépp ñu waxandoor ma hada bashar kii du nit kii boo demee malaaka la waaye nekkul nit mu ne ma ngoog kii day laa doon sàkku yéen ñëpp ngeen di ma ci yedd ñu ne ah mbir mi jar na ko kat saliqaani ah su deful li ma koy wax dey dana danañu ko tëj te danaa ko toroxal kon jigéen ñi ne Yuusuf tee nga def ko def ko Yuusuf ne yàlla pexe day amatul man mooy sama sang ci këram laa nekk su ma digalee duma sañ a bañ su ma bañee mën naa ci am mbugal te man duma mooy yàlla yàlla jaaxle ñëw na de dégg naa nag mu tudd kaso buñ ma tëjoon kaso day moo ma gënal li may woo ndax kon dana ko sori mu fàtte ma yàlla boo wut pexe mii day dana ma jàngaloo ma jëm ci lu bon te kon dana réer te kon dana alku yàlla ne nangu naa sa ñaan soppi naa pexe mi ndax dégg naa bi nga may ñaan ah léegi ñu ne nañ def politique ndax itam buur bi ne foog ma def benn politique ndax sama jabar bëgg na Yusuf te Yusufa bañ na loola te am na ci gàcc dëkk bi yépp a koy wax kon léegi damay jël Yuusuf tëj ko ci kaso bi ndax ñu ne aha jaam baa doon sàkku sa ngam moo tax ñu tëj ko mu daal di jël Yuusuf rek yóbbu ci kaso ba tëj ah ñu fàtte fa Yuusuf Yuusuf fekk fa ñaari waay ñaari gaa yooyu Yuusuf a ne man de comme fekk naa fi ñu mel nii xaaral sama mission tàmbali fii ma waar ñii ci yàlla mu tàmbali di wax ak ñoom ci yàlla kenn ki ne ko Yuusuf man sax biig dama gént di nal nal sàngara bu ma ko nalee di nekk ci rek di nal rek di teg kenn ki ne Yuusuf may dee dama géntoon yenu mburu picc di ko fëkk ci sama bopp dañoo bëgg nga firil ñu ko nag ndax yow ku xam lii nga Yuusuf ne lépp lu aju ci lekk naan bay suuf économique lépp lu ci aju yàlla mooy ki ma ko xamal lu leen fi ñëwal ci xeeti lu aju ci lekk ak naan ak suuf ak mbay ak yépp rek naa leen ko wax te dama leen koy wax balaa looloo ñëw bu ñëwee ngeen xam ne lii mooy li ma doon wax loolu nag man yàllaa ma ko xamal ndax man naa bokk caaw xeet woo xam ne yahud ñu gëm yàlla ñu jaamu yàlla ma bàyyi jooju diine topp sama diine baay ibrahima ak isxaq ak yaqub ñun duñ bokkaale ak yàlla dara ci loolu laa nekk léegi nag yéen sama ñaari xarit yi le mu ndax nit ko am ñaari yàlla ak ñetti yàlla ndax dana ma yem ak ko am benn yàlla ñu ne ko déedéet mu ne mi nga xam ne kenn mo na mooy na tàkkoon ci laa bëgg ngeen nekk ci amul len lu ñuy jaamu lu moy ay tour la yeen ak seen baye ak yeen ko fi sos joge wut ci yalla dinay deug dal moy jaamu yalla mu war gañ be gaañi seen xol sori ci yalla mu ne legi nak ma firil len yow mi nal sangara yow leg ñu genné la kasso da nga wat ci pale ba di nandal firawna na yow loolaay sa mbir koy may yow mi yenoon mburu picc di ko fëkk yow doo génn kaso yow kay dañuy àtte rey la daaj la fii picc yi ñëw di la lekk waa ji ne ko man sax diggante ma dara dama doon wax mu ne ah jeex na mu ne dogal bi jeex na wax naa ko noonu la ko yàllay defee ndekete dafa amoon benn complot bu amoon ca pale ba diggante tisinge bi doon toggal buur ak ki ko daan defal naanam complot boobu nag ñu jàppoon ñooñu tëj leen ca kaso ba waa jii nag moo doon tisinge buur bi moom ndeke moom lañ joxoon dangar ak tooke ne ko def ko ci ñam wi ndax firaw na dee ci ñu jàppe ko loola ki yore woon naan gi nag fekkewu ko woon dañu jàpp gaa yi rek jàppale ko ci cëllëg si rek ñu ñëw fëgg bunt bi ñu génn gaa yi dal di àttee daal di ne yow mii yoon setal na la bokkoo ci yow mi doon nandal génnal mu génn dellu ca pale ba yow mii nag bokkoon nga ca ndax yaay tusuñu bi doon def ñam wa ñu jàpp ko ne yow dañu lay rey ñu génn rey ko daaj ko la Yusuf waxoon dal di am ba ñuy dem na Yusuf a téye ci loxo waa ji ne ko sa waay yow da nga génn waaye boo demee fàttali ma ci firaw na ñu ma tëj fi te defuma dara fab rek tëj ma ndax Azizu Misra moo fi tëj ne def maa tumaal ci jabaram te xam na ne defuma ko jabaram xam na ko ma it xam naa ko ñi def politique rek tëj ma fii ndax setal seen jabar firaw na mi nga xam ne moo yëlif Aziz boo demee nag ma fa fàttali nga ne am na gune gu ñu tëj fee deful dara mu ne baax na kookoy ba ma yàgg di ko wax waaje dem ñu delloo ko pale ba mbir ma neex mu toogati juróom-ñeenti at wala ñetti at ndax bidu ci arab ñett la ba juróom-ñeent waaye ulamaawu tafsir nee na alxaalibu mooy juróom-ñaari at waaja toog ca pale ba juróom-ñaari at Yuusuf ci kaso ba kenn waxut ci moom dara ah benn bés buur bi daldi di ne daal woo pale bi yépp ñu ñëw mu ne gént naa gént gu réer réer ñu ne lan la mu ne woo leen buxaaba yi ci misra yépp ñu ñëw ñoo buxaaba yépp ñu ñëw firaw na ne man dey dama génte juróom-ñaari nag yu duuf juróom-ñaari nag yu lapp di leen lekk juróom-ñaari gub juróom-ñaari di leen lekk lii laa bëgg ndax Égypte fii ak mbuxaaba fii la samp baax na ngeen ma ko firi gaa ñi seet seet seet seet consulter sen yef yi gisuñu dara ñu ñëw ne dañu yaakaar ne nelaw yu neex rek la waaye du dara ñun sax nag yi gënte dañ ko mënta firi loolu lañu ñu waroon wax rek yem ci ah waaja ne aha gént la fàtte woon naa as ngóor nga ca kaso ba firi gént rek la man wax na dëgg ndax moom moo ko firil gént ba mu génn ne yéen yónni leen ma ma dem léegi woo ko ñu ne ko demal noo ngi toog di la xaar mu daw ñëw ña garde bi buuram a ma yebal tijil wool yusuf ñu wow mu ñëw mu daal di nekk yusuf ayyuha sadiq yaa bon ci xarit yusuf sama xarit ñëw naa xarit nga fàtte ko fi juróom-ñaari at yusuf ne ko lan la mu ne buur dafa gént génn gént daal di ko nettali ba mu sotti su ne ko ma wax la boo demee mu ne gaawal waxal ma waaye ñu ngi nga toog di di ma xaar laali arji la naas mu ne juróom-ñaari at yi ñëw ci kanam su ngeen bayee dangeen bari dugub lool bele beeg yépp dana ñor na ngeen ko denc dencaale ñax mi di génnee tuuti tuuti tuuti di ci lekk ndax juróom-ñaari at yi cay toppkat dara du ngeen ko am dara du génn ci dex gi dara du taw su ko defee la ngeen dencoon ngeen di ko lekk jur gi di lekk ñax ma ngeen dencoon bu leen bàyyi gàttax bu leen bàyyi dara bu ngeen góobee denc leen lépp rek gis nga ci wàllu économique yonent yàlla Yuusuf bu ñu étudier plan bi léegi leen ko tàmbali mais daawuñ ko def ngooñ ci àll bi sànni rek dañ ko daan lakk bu ñuy ruuj te Yuusuf waxoon na bu yàgg ne li ngeen góob denc leen lekk gi ñax mi ngeen dencel ko jur gi loolu waro nañ ko xam bu yàgg xeyna na sécheresse rek moo ñu ko xamal waaye ngooñ dañ ko daan sànni rek mu ne nag bu juróom-ñaari bekkoor yooyu weesoo juróom-ñaari at yu ak juróom-ñaari bekkoor we muy fukkeet ak ñeent fukkeelu at baag juróom nag day naatati su ko defee nag dana taw naat brésin bi sëqaat meññ ngeen nal sàngara delluwaat ci la ngeen nekkoon rekk waa ji tëb daal di booy ñëw nag ñëw daal di ne firaw naa ngóor si wax na nangam ki nangam ki nangam ki nangam nettali ba pare firaw ne déet ko kay léegi dañ koy génne koy kay day ñëw fii lay dëkk si ci pale bi fekk na ndeysaan Azizu Misra deena fi Azizu Misra deena firaw naa fi nekk amul beneen Aziz far amul premier ministre Yuusuf ñëw daldi wax ak buur bi waa ji dikk ne ko buur ne na ñëw daf laa bëgg a fal nga nekk premier ministre nga toog ca palais ba jiite nguur gi Yuusuf ne ko déedéet dellul ci sa Firawna ma nga ne ko du ma génnee noonu nañ ma laajal jigéen ñi fexe woon ba ma dugg fii lan mooy seen mbir nañ lay kay ba ma set ndax it nit duñ ko def premier ministre ba pare mu am tuuma ñu dal di ne baax na Firawna convoqué jigéeni Misra yépp ñu teew mu ne waaw maa xat bu kunna isra na Yuusuf an nafsi waxal leen ma nag luy dëgg ci bi bi ñuy sàkk Yuusuf ci boppam Zaliqaa ne bërit ne tey day la dëgg gi weex ndax it sama jëkkër léegi dee na am na yoo xam ne léegi mën naa ko wax man tigi maa ko sakk woon mu bañoon yusuf ku baax la yusuf ku dëggu la boo gisee may wax lii fii dama bëgg yusuf xam ne nekku fi ma ngi ca kasaba waaye waruma ko wurujuma ko ne naa ne ku baax la maa ko sàkku woon loolay zalika li yaalam ani lam axunhu bil xëy bi benn piréngo zamaxshari ne déeréet dafa wax ne ndax sama jëkkër xam ne dee na sax nekku fi de waaye mu xam ne waruma ko woon dama sàkk woon Yuusuf mu bañ waaye jotuñoon a def dara sama jëkkër newu fi de waaye nag xam ne waruma ko woon ndax jotu moon a def ak Yuusuf dara lam axunhu bil xëy bi ndax itam yàlla moom kuy wuruj wala ngay wor du defar say mbir suñu dar ba foofa la nara a wayé qissa bi mom dañ kay motali dar bi nak mu nuy jang nu yam fofu bañ waxé lolu yusuf ne kon nag ndem kay légui leer na ne man defuma lu baax yusuf dal di ñew ndaw sa tek ci nak ne man duma seetal sama bakkan ndax bakkan mom ñepp ko la rek dafa am bakkan bu bon ak bu baax sama bakkan nag bu bon la won moom firaw na ne indi leen ma yusuf ñu indil ko ko mu ne léegi kat ah takkal naa la ndombog tànk innaka al yawma ladayna makkinun amin looy ndombog tànk gi léegi damaa bëgg jiital la ci réew mi yusuf ne ko jox ma wàllu économique bi ij'alni ala xazaini al ard nit ki sañ naa laaj pal gi man ne jox leen ma ko ndax fiñ ko naroon a yóbbu mu ne lii laa man mu ne ijaal ni ala xazayin loolu la man ñu ne ko farale nañ la ci waaye da ngay boolee nekk premier ministre yore économique boole ci su nekk ci loolu mu nekk ci loolu ab diir ati bekkoo ati ati naataange ñëw na ñu bay góob denc ati bekkoor yi nag ñëw na bekkoor bi nag àgg na Palestine seen waa dëkk waa waa kër Yusuf amuñ dara léegi nag dañuy jéggi ndax bekkoor boobu moo tax ñu jóg ñu daal sëf nag tàggu yaqub ne ah noo ngi dem de ñu demee daal dañuy wuti daal lu ñuy mën a am ba ñu ñëwee yusufa xàmmi leen ñoom xamuñ ko yusuf nattal leen may leen delloo leen seen xaalis ne su ngeen demee nuyu naa seen baay su ngeen ñëwati nak seen rak joju ngeen koy indi bu ngeen koy wut kat du ma leen nattal du leen jox dara te gis ngeen ni ma leen jegeñalee sama bop su ngeen wut nak seen rak bu ndaw ba fala kayla lakum indi wala taqrabuni du ngeen ma jege it nak ñu na ah, buñ demee daan ko jéem gor gi nak ku jafé la danañ ko jéem de ku jafé la mu daldi ne yi yusuf ne xalé yi jëlal seen xaalis bi nga dugal ko ci seen biir mbuus solal leen dugub ba mu fees nga takk ñu dem buñ demee ba yàgg ji seen xaalis xam ne dama leen a may jaayuma leen su ko defee dinañ mën a dellu si xale def noonu ñu daal di sëf nag ñibbi nañ ba ñu demee ci seen baay ba sotti nag gis xaalis ba ñu ne baay ñun kat nee nañ buñ dellootee duñ jox boo yónniwul bin yaamin rakk Yuusuf mu ànd ak ñun dañoo bëgg nga yónni ku mu ànd ak ñun moom itam ñu nattal ko te daan ko wattukat góor gi ne ah, wóolu ma leen ci de xanaa ni ma leen ñàkkoon wóolu ci Yuusuf waaye nag yàlla mooy wattu moo gën a yërëm bàyyi naa leen nag yàlla yóbbu leen ah ñu ne bàyyi mbir mi dafa neex kat jéggi ñu delloo la sa xaalis sa mbuus fees dell ak dugub loolu dafa neex kon nag boo nu booleeg suñu rakk ji ñu ànd ak moom li muy tekki mooy beneen sëf dana yokku jëggi indi sab xaalis wattu sa rakk ba dara du ko jot yokk ab sëf baax na de ñu ne kon nag dem leen góor gi nag ne waaye balaa ngeen a dem foog ngeen géñal ma fii ne da ngeen koy indi feeg jàppuñ leen ñu daal di géñ ne da ne ne fokk rek la taatu nabi la taatunnanii bihi ilaa an yuxaata bikum ñu géñ loola mu ne géñ geen ko ñoom ñëpp ñu géñ yaqub ne baax na yàllaa ngi seede wala ala ma naqul wakil dem leen ñu dem yaqub ne waaye ma dénk leen su ngeen demee waaye bu leen duggee ci benn bunt bu leen duggee ci benn bunt na ngeen tasaaroo ñi duggee fii ñi duggee fii ñi duggee fii ulamaaw tafsir jalaalayni xaashiya wax nañ ci lu nekk ñu ne kon ndeke nit ki bu la xoolee ay bët wala mu gémmiñ la daf lay dal loolu lay la ba ragaloon ba mu ne bu leen duggee benn bunt kon dañ leen di gémmiñ xajaas yi ne waaye déedéet du loolu yépp docteur na jaarit ne di loolu li xew kay moo di ne réew mu mel ni Égypte ñii ñëw jógee Palestine bokkuñu col bokkuñu melokaan ñii ay africain lañu yéen ngeen nekk ay asiatique bokkuñ nu ñuy solo bokkuñ nu ñuy kaalawoo lu ci mat fukki góor ak ak benn dugg ci mel ni mbedd foog ñu xam ne ñii ay gan lañ kon ñu jàppaleen la yàqu boo xoon ne kon bu leen ko def na ngeen tasaaroo ñi duggee ni ñi duggee ni ngeen jaxasoo ci dëkk bi waaye bu ngeen rungee di fukki ponkol ak benn te bokku leen nit ñi col ñu xam ni ñi ay étranger lañ foog ñu jàppaleen ñu def noona ne leen seen bàyyi waxoon ñu dugg ci dëkk ba dem ci yusuf ba yeggee ci yusufa nag nuyu ko yusufa berndel leen ñuy lekk mu ne ñee ñoo bokk ndey nañu toog fee ñee ñoo bokk ndey nañu toog fee ñele it ñoo bokk ndey nañu toog fee Binyaamin ne buur man dey kama bokkaloon ak ndey ñii ñoo ko rey moo tax ba man awma ku ma bokkal mu ne ko ñëwal bokk ak buur kay moo tane ñëwal maag yow ñu bokk yusufa daal di woo binyamin ñu bokk di lekk mu ne ko bul tiit man maay yusuf man maay sa mbokk ma kenn reyu ko maay buur fii tey léegi nag dana am lu ma lal muy pexe waaye bu ca tiit bul wax dara bàyyi rek danaa def pexe ba téye la luñ mën a defit bàyyi rek luñ la tuumaal it na nga mu ne waaw léegi nag ñu ngay gont mu duye leen seen i mbuus ba mu fees daal di jël mudd ma kaas ba nga xam ne moom la Yusuf di naanee ñu dugal ko ca mbuusu Binyaamin takkaale ko ñu dem ba ca bunt ba rek am benn waaye dine ayyataali eer innakum la saariquun ay njëgg ci yéen Yahuza daal di mer nag deret ji daal tàng nag mu ne ñun ay yóninte doomi yóninte duñu sàcc mukk xam ngeen ne ñëwun ci réew pour yàq ko ndax sàcc mooy yàqam réew te ñun ñëwuñ pour yàq maa jinaa li nufsida fil ard wa maa kunna sariqin sàcc mooy yàqam réew te ñun duñ def loolu lan ngeen nemmeeku ñu ne kaasu buur bi muy naanee kenn gisu ko ñu naa ah, ñu de yorewun ko mu ne ah garde ya ne ku ko ku ko génnee day danaa ko yokkal sëfub gélam te maa ko gàddu xale yi di mer nag ndax jiñ leen sàcc nag ñu ne léegi nag bu ñu fekkee mbuus mi ci yéen lan mooy pay gi ñu ne pay gi daal mooy ku ngeen fekk seen a mudd ci mbuusam rek moom ngeen di téye muy muy pay ak loola ñu ne a ah, baax na alquran nag ne yàlla mënoon naa bàyyi ñu àtte woo ca sharia bi yaquba te sharia bi yaquba duutoon loola waaye sharia ba xewoon misra mooy ku sàcc ak càcc bu ñu la jàppee yaay nekk jaam ci kër ga ba liggéey fa lu ëpp li nga sàccoon waaye bu àttee woon ci sharia yàqu ba kon duñ jàpp du jàpp rakam waaye ma ngi àtte woo ci sharia yàqu eh, eh, misra ñëw nag di tekki seet tekki seet mujjee bin yaamin moo ca mujj ñu tekki rek daal di gis mu dama mu ngi nii ñu daal di ko jàpp am kenn ci ñoom ne ah bu sacce yi day kon ñu xamne xamna dañ ko don mo ngi mbokal ndey ndax magam da daan sàcc yasriq law min qablu boo demee kooku irq la dañ ko dañ ko nàmp magam da dan sacc rek yusufa daldi di mer nak daldi di neub nak mbir momale waye fu nek nak mbir mo metti nak lol mu japp rakam yusufa ne len yene yes yene bon yene Nyaujiku jikko non ngeen di xasse ko xamne musul sacc ngeen ne day sacc ñu nak nag waaw waaye nga bal ñu ñun dal liñ bëgg a wax mooy baayam magal la lol te nak dafa nap ci gune gi legui dal liñ bëggoon nga jël kenn ci ñun mu tok fi nga mu mu fayee ko nga fayee koo ko bàyyi gune gi mu ñibbi mu ne aa ah, kon ma tooñ man mënumaa jël lu may ki nga xam ne mbuusam fekk naa ko sama alal fekk naa ko ci mbuusam rek Yahuza ne kon dey gune yi ñibbi leen man de du ma ñibbi man géñoon naa dem ca bàyyi naan ko Binyaamin nag ca àll ba déedéet fii kay laay nekk ba dee walla ma jot ci gune gi wala góor gi jox ma ndigal waaye dootuma fi jóge su ngeen demee nag ngeen ni bàyyi sa doom de sàcc na jàpp nañ ko yow sax nag nee na du jóge fekk jotu ca ngeen yëgal góor gi ne nit mënul seede lu mooy li mu li mu gis te loolu nag loolu ngeen fekkee dafa sàcc ngeen wax góor gi ne na laaj waa dëkk bi mu laaj ñi ne àndoon ak jéggi dañ xam ne wax nañ dëgg ñu ñëw wax loola yàqu ba rek yàqu ba ne ah seen bakkan dey santati na leen lu bon ni ngeen defoon Yuusuf waaye maa ngi muñ yàlla nag léegi mën na indi ma indil ma ñaar ñépp yàlla mën na ma ko indi léegi mu daal di ne bëlet jox leen gannaaw moom moom Yaaqub daal jooy daldi ne am naaw métit mu jooye jooy jooy magat la won mu joy bay bëtam jekaliku mu daldi di nak gisatul ñi ñew di yedd naan ko yow do do dañ di fatali yusuf ba ngay dee ku dee bu yag nga naan yusuf mu ne wa waye man tawat tawat lu ma tawatuma jëm ci yeen ma ngi tawat ci yalla sama jaxere te xamna ne xamna ci yalla lu ngeen xamut mané na ngeen delu Égypte ngeen wërali ma ak rakam joju tayit waaye bu leen naagu ci yërmande yàlla waral leen ma rek xale ya dellu nag ni ñu ngay wëri mu ne su ngeen wëree aman na ngeen gis ñu dellu nag ca yusuf ba ñu agsee ci yusuf ne ko aziz nun dey danoo dikkati bëgg nañ nga natal ñu jox ñu te nga saraxaale ñu ci nag fa daal di mer nag ne ñii di ay sang di yonent doomi ay yonent di ñaan di di saraxu daal di ne ndax xam ngeen li ngeen defoon Yusuf ak mbokk ma bi nga xam ne yéen gune ngeen yéen ndax booba kenn yéen wut leen waa ji xoolaat seetluwaat gune gi xam mi deret ji mu ne ko ndax yaay Yusuf mu waaw man Yusuf la kii sama rakk la Binyamin yàlla moo nu xéewal nu gise xamoo ne ku muñ te ragal yàlla sa jëf yàlla du ko sànq mukk ñu daal di ne génn nañ ci yàlla ne yaanu gën yaanu gën fuuf te ñun juumoon nan de Yusuf ne yedduma leen sax yàlla baal na leen ndax yàlla ku mën a yërëm la jël mbubb mi sama mbubb la ngeen yóbbul ko góor gi su ngeen ko joxe bu ngeen bu ko tege ci kanam rek day gis su ko defee nag bu gisee bay bëtam leer ngeen màng yeen ñépp ñëw fekk si ma fii ñu dal di jël mbubuma ba ñu génnee misra rek yaqub ne yusuf ak may xeeñ suma bañu leen ngeen ne damay fen ma ne yusuf ak may xeeñ ini la ajidu riha yusuf law la antu fanni duni ah xale ya dal di ñëw ba ñu ñëwee sànni góor gi mbubba mi fekk xale yedd nañ ko ne ko yow yaa ngi ci sa réer ga sa bopp bi dafa toj yusuf dee bu yàgg nga naan mag may xeeñ dañ ko sànnee mbub mi rek mu daal di gis daal di ne ah waxoon naa leen ne xam naa ci yàlla lu ngeen xamut xale yi daal di àgg suuf ne bàyyi ñaanal yàlla mu mu baal nu ñun dana juumoon mu ne baax na danaa ñaan yàlla mu baal leen waaye defagu ko nag gis nga yusufa maqaama bi mu ëpp maqaama yaqub ndax yaqub def ne sa astaghfiru lakum rabbi yusuf nag ba ko gaa yi ne yaanu gën ñaanal yàlla mu baal ñu def ne yàlla baal na leen yedduma leen waaye yaqub def ne danaa xalse naa def lool ba ñu yëgsee nag yaquba yëgsi yaayu yusuf fekk na yeneen meer yi faatu nañu xale yi ñëw di fukk ak benn ak ndeyam ak baayam ñu dugg nag yusufa dal lalal bi baayam toog yaayam toog xale yëpp daal di sujjóot ci suuf ne yusuf baal nu yàlla yan nag ñu baal ndax ñun juumoon nañ yusuf ne bàyyi sama gént gaa ngi nii fukki biddiw yi ak benn mooy sama frère yi yow yaay gént bi sama yaay mooy weer wi haza tawilu ruyaaya qad jaala rabbi xaq bi loolu mooy lenn ci qissatu yusuf la alquran di wax yonent bi alayhi salaatu lii ko ci yitteel moo di dañoo ñëw laaj ko ne ko dañoo bëgg nga nettalil ñu xissatu yoosuf te xam nañ ne bi mënul jàng buñ bindee du liir buñ ko bindee ci beneen béréb du ko mën a jàng ñu ñëw di ko laaj ne ko na nettali jibril ñu wàcce saar wi ne ko alif laam raa tilka lii aayatul kitaabi mooy aayay téere bi almubiini bu daay ji biir innaa ñun yàlla anzal na wàccee nañ ko qur'aanan muy alqur'aan arabiyan muy arab du ci benn làkk waaye arab la alqur'aan moo di arab moo tax léeg-léeg nga dégg ku ne gune yi jànguñu alqur'aan arab la ñuy jàng alqur'aan moom mooy arab laallakum ndax yéen taaqiloon a ngeen am xel nax nu ñun na yàlla nag ne yonente bi man duma la nettali qissa waaye man yàlla maa la koy nettalil gën jaarafeti nettali ba nga gën koo xam nax nu ñun naqusu ñoo ngi nettali aleyka ci yow aasanal xasasi gën jaarafeti nettali bi maa waxey naa ci lu ñu wax yu ilayka jëm ci yow adal quran wa kunta naka nekkoon nga min qablihi njëkk ba alquran di ñëw la min alxaafilina ci way réere mbir mi ñàkk koo xam mu ne ma li may nett li mooy jàngatal is qaala bay wax yusuf li abihi ñeel baayam ne ko yaa bëti yow baay inni man raaytu gis naa aada ashara fukk ak benn kaw kaban ci bidiw wa shams ak jant ba wal qamar ak weer wa raaytum gis naa leen saajidina ñu di way sujoot lii ñeel ma qaala wax yaqoob ne yaa bunayya yow sama ndoom laa taqsus bul nettali ruyaaka sa gént alaa ixwatika ci sa bokk yi fayakido ñu fexe la ke la kay den pexe ina shaytan nak shaytan adu non la lil insaani ñeel nit mu binun ku day ji biir jig noné wa kadalika naka noonu yej tabii ka lay la rabbuka sa borom wa yuallimuka muy qamal la min tawil al hadith ci pirim ay gént wa yuttimu muy matal nicmatu xéwalam alayka ci yow wa ala ali yaqub ak ci gir yaqub kama tamaha nak mu koy matalé ala ba wayka ci say bay min qablu ci jëkk ibrahim ak ishaqa in rabbaka naka sa borom alimun aji xam la xakimun aji xarala la laqad kaana nekk na fi yusuf wa ixwati ak mbokkam ya ayaatun ay kawtéef li saayili na ñeel ñi koy laaj isqaalu jàngatal bay wax ba ñuy wax naan la yusufa day waaxoog mbokkam ma a bu mu ëpp cofeel ilaa bi naa suñ baay min naa ci ñun wa naa nu ñun usbatun mboolo lañ innaa baana nak suñ baay la fi dalalin dafa nekk ci gréer mu binin guddaa ji biir uqtuloo rey leen yusuf aw itrahuhu wala ngeen sànni ko ardan suuf soo xam ne su fa demee yax lu wéet lakum ñeen leen waju abikum anam ak seen baay wa takkunoo ngeen nekk min baadi yi gannaaw ga xaw man diw nit saalihi na ñi di way yiw qaala wa qaalin aji wax minum ci ñoom ne laa taqtuloo bu leen rey yusuf wa alqawu sànni leen ko fii xëyaabatil jubbi ci teen bu amul ndox bi yaltaqidu for ko baadu siyaarati leen ci way tukki ya in kuntum dem nekk ngeen faa'ilina di way def mu fekkee mu leen ñàkk def loolu ngeen di def ñu def ko qaalu ñu ne yaa baana yow baay maalaka loog yow laata mën naa doonu wóolu mukk ala yusuf way naa ñun la naa si woon way laayi birin lewo ñeel ko ñu ngi koy àbb arsil hu yónni ko maanaam mu ànd ak ñun xadan ëllëg yarta muy fo way yarta muy foytu wayal ab muy fo woy naa ñun la xaafizuuna way wattu lañ lewo ci gune gi qaala wax yaqub ne inni man la yoxsunu nii dana jàqaloo ma dana tiital ma anta zabo bii ko waa xaafu ragal naa an yaakaloo di lekk ko zibu tilla wa antum te yéen gaafilan way na ngeen anu ci moom xaaloo ñu ne lay naka la ndem lekk na ko zibu tilla wa naanu te ñun usbatun ñuy mbooloo innaa ñun isan boobale la xaasiro na nga xam na ñooy nekk di way perte fa lama daabu ba ñu demee bi yeeg moom wa ajmau ñu dal di boole seen pexe an yajaaluhu ñu def ko fi xeyabatil ji ca lëggëm teen bu bënul ba waa waxee naa ñu waxyu ilayhi jëm ci yuusuf ne mu muñal rek lii dana wéy doo dee la tu nabbi annahum bés dina ñëw ba yow yaa leen di solo bi am rim seen mbir mi haasa mi wahum te ñoom laay soroon duñ ko yëg wa jaawoo ñu dikka abaawum seen baay echaan ca gee yëpp ko ne ñuy jooy jooylu xaalu ñu nga naan yaa na yow baay innaa ñun zaam naa demoon nañ nastabiqu nuy njëkkalante ka daw di rawante ca àll ba watarak naa ñu bay yusuf inde ma taay na fa suñu yére ya faakiloo ñëw rek lekk ko ziibu til la loolu gaaw na wa ma ante déet yow bi muminin ñu di way gëm ngay ngay gëm la naa ñeel ñu walaw kun naa doonte nekkoon nañ saadiqina di way dëggu wa jaawoo ñu indi ala xamis yi ci mbubam yusuf bi damin ci deret kadibin yoo xam ne ki ko indi aji nar la loolu mooy qiraatu xafsa am na ñu jàng kadibin lu mel ni dereti til la xaala mu ne ballu fi nekk sa wala rafetal na la lakum ñeen leen anfusakum seen bopp amran mbir sab fa sabrun war na ma muñ jaminan ku daaji rafet wallahu yàlla almustaanu mooy ku wax ji nga xam ne tasifuuna yéen a ngi koy melal ci seenu lammiñ wa jaar dikk ca teen ba sa yaaratun way tukki faar loo ñu yónni waari doom seen aji rooti ja faadilaa mu yoor daloo hoo baagam ba xaala mu wax gannaaw ba ci gune gi jàppee bushra ye mbég ñeel na ma haasa lii xulaamun gune la waa saroo ñu nëbb ko bidaatan muy marchandise wallahu yàlla alimun aji xam li ma yaamaluun ci la danañu def ko wa sharawu ñu jaay ko bi sama nin ci njëg bax seen gu suufee drahima ay dërëm maadudatan yu ñu lim wa kaanu nekk nañ sax mi ne ci way dëddu anu ci gune gi bëggatuñ ko moom wa qaala wax allazi aziz mi nga xam ne ishraawu jënd na ko min misra ci misra limraati ñeel jabaram ne ko akrimi tëralal maswaaw sax waayam asaa man na an yanfaana mu jëriñu aw na taxidu wala ñu jàpp ko wala dan muy doom wa kadalika nak noonu makkanna la ñu saxal li yusuf firaade ci suuf wa nu allimoo ñuy xamal ku min taawil ahadisi ci prime ay gént wallaahu yàlla xaalimun aji not la ala amri ci mbiram walakin waaye ak tanaasi li gën a bëri ci nit ñi laa yàlla mun a xamuñu wala ma balaxa ba yusuf nekkee ci kër aziz màgg fa ba jot ashuddoo dëgëram aate naaw ñu jox xukman atte ba wa ilman a xam-xam ba وكذلك نكنون نجزي لني في المحسن ورفت ليا وراودو ساكونا كلتي جيجين ديغا خامني هو يوسف في بيتي اي تي كرم لا نيك ان نفسي تي موم يوسف وغلقت لو ستجنا على بواب بنتيا وقال منك حيت لك نيول تي قال وخ يوسف ما عز الله ماغي نيان يالا مسلم انه يالا انه لوي ربي سان بروم ahsana rafetal na mas waaye sama soxu waay innahu luy mbir laa yaflihu du texe azalimuna way tooñ wala qad hammat ittewoo na ndaw sa bii ci yusuf wa hamma ittewoo na yusuf bihaa ca jiñ ndaw sa lawla an raa donte gis ge mu gis burhaan rabbi lay boromam kazalika naka noonu li nusrife ngeen ñu soppi an walis ko soo lu bon la wal faxsha ak lu ñaaw innahu yusuf min ibadina bokk na ci suñu jaamee ñun yàlla almuxlasina ñu dañu ñu sellal wastabaqaa ñu njëkkanlante albaaba bunta ba waqad dët xotti mu xotti xami sama ba ma min duburin ca gannaaw waal fa yaa ñu fekk sa yédea sanga ba seen sanga ba moom ndaw sa la dal baabi fu bunta ba qaalat ndaw sa wax ne maa jazaaw man araada bi alika suu an lan mooy payak ku bëggoon ci sa jabar lu bon illaan yusjana xanaa ñu tëj ko aw adabun alim wala mbëggal mu metti xaala wax yusuf ne déedéet hiya moom kay raawada nii moom a sàkku a nafsi ci sama bopp wa shahida seede na shahidun aji seede min aliha ca mbokki ndaw sa waaje ne in kaana bu nekkee xamisoo mbubam ma xudda xotteef ko min qubulin ca kanam fa sadaqat kon ndaw si wax na dëgg wa huwa yusuf من الكاذبين بوك نتي وين ناريا واي وين كان بو نيكي قميصو مبومي قد قتكم من دبرين تي غناو فكذبت ناو سي نارنا وهو يوسف من الصادقين بوك نتي وي دغ فلما را ببور با غيسه قميصو مبوما قد قتكم من دبرين تي غناو قال من انه لي من كيدي كنا بخم جيجن لا ان كيد كنا نك سين بخي عظيم لو ماغلا يوسف اريد دول رك انا ذا تي لي تفاتكو ندوسي واستغفري بالون لذنبك تي سي بكار انك يو كنت نك يو ندوسي من الخاطئين تي دفكتي بكاري yow def nga lu ñaaw yow ndaw si yusuf fàtte ko léegi nag mbir ma siiw na wa qaalat wax na niswatun jigéen ña fil madinati ci dëkk ba ñu ne imraatul azizi jabari aziz kat turaawidu ma ngay sàkku fataha jamam ba a nafsi ci boppam ci boppam moom yusuf laqad shagafaha moom lay borxal na ci foofale xubban cofeel borxal mooy dugal lu xat dugal dara ci fu xat fu mu xejut ñu foofu ak mbëgg mbëggeel xëju fi woon waaye dugal na ko fa moo tax mu ne chaxafaha boroxal na fa hubban ak cofeel naa ñun la a naraaha gis nañ ko moom ndaw sa fi dalaalin ci réer mu bi neen guddaay ji biir falama samiat ba ndaw sa déggee bi makri na pexem jigéeni dëkk ba arsalat mu yónni ilayhi na ci ñoom ab ab woote waatadan mu waajal lawu na ñeen leen mu takkaan nja ngan ngan goo xam ne dañ koy lekkee ci taabal waat mooy mu takkaan waatan mu jox kullu waahidin képp kenn minhun na ci ñoom sikkiinan paaka wa qaalat mu ne uxruj yusuf génnal alayhi na ci ñoom falammaa raaynahu ba ñu ko gisee akbar na hoo ñu garaawal mbir ma wa qataa nañu dagg ay di yéen seen loxo ya wa qul nañu ne xaasha sell lillaahi ñeel na yàlla maa haza déet kii basharan muy mbindeef in haza déet kii illaa malakun lu ma malaaka karim bu ji tedd boo demee ci ñenn ñi nettali ñu ne xar-xar yi xotti xotti rëdd yi ci loxoy doomu aadama foofa la waaye dañoo juum rëdd yee jiitu loolu xaalat mu ne fa zalikunna loolu la seen alazi mooy li nga xam ne lu mu tudd nii yedd ngeen ma fii ci loolu ولقد راودته سكو ناكو عن نفسي تي بوبم فساسام مو دالدي نيون مو نيك كو نيون ولا ان لم يفعل واي بو ما عمره لي ماكاي ديغال لا يسجن ولا يدس نكو ولا يكون دنا نيك من الساخرين تي واي قال وخ يوسف ربي يلا اسجن كاسو غي داي احب مو با الي جيم تي بما يدعوني ني دنا ووما الي جيم تي موم ويلا يلا بو سوبي عني ولي سما كيدو نسن danaa jàng ilayhin na jëm ci ñoom waa kun kon ma nekk minel jaay leen ci wéréer ya fa stajaaba yàlla nangu la woo ñeel ko rabbuhu boromam fa sarafa yàlla soppi anhu walis ko kaydu na seen pexe innahu yàlla huwa moom asami mooy ji dégg alaali mooy ji xam sama badaa feeñ la ñeel ñee ñeel waa misra min baadi ma raaw gannaaw bu ñu gisee laa yaati kawte fii mooy gannaaw bu ñu gisee politique boobu ñu gis ne daal la ji na nawoon nañ ko t ataa hinin ba ñu fàtte ko yusufa tëj nañ ko wa daxala mu dugg maa wa ak moom a na kaso ba fatayaani ñaari ñaari xalel xaala wax aaduma kenn ki ni indi man de araani gis naa ci samay nelaw aasuru maa ngi nal xamran sàngara wa qaala wax alaaxaru kenn ka indi man it araani gis naa gis nga ma ciy nelaw a aamilu maa ngi yenu fawqa raasi kaw sama bopp xubsan mburu taakuli di lekk tayru picce minu ci mburu ma na bi naa soluñu bi taawil yi ci piréem innaa ñun naraaka gis nañ la minal muxsinin nga bokk ci ñam xam-xam xaala mu ne laa yaatikumaa du dikka leen taamun ñam tarzuqaanihi wow def na wërsëgal leen ko illaa nabatukuma lu may ma ma firil leen bi taawili ci mpiréem ma solo leen bi taawili ci mpiréem xablaan yaatikuma njëkk bay dikkal leen zaalikuma loolu bi ma àllama nii bokk na ci la xamal na ma ko rabbi sama borom inni man traktu bàyyi woon naa mi la ta qawmin diine ne a la ta yi diiney sama baay ibrahim ak isaaq ak yaquba maa kaana lana yelut ñeel ñu an nushrika ñuy bokkaale bilaay ci yàlla min cheyin dara zalika loolu min fadlillahi bokk na ci ngëlelu yàlla alay naa ci ñun waale naa si ak ci nit ñi walakin waaye aktar naa si lépp ci nit ñi laa yashkuroon du ñu sant yàlla yaa saaxiba yi sëñ ni yéen ñaar ñi ànd ak man ci kaso gi arbaabun mu ndax ay yàlla mutafarriquuna yu teqalikoo xayrun moo gën amillahu wala benn yàlla alwaaye du bay dégg ngeen di jaamu min dooni hi lu dul yàlla illa asmaan lu mooy ay tur la samay tumoo yéen a ko tuddee antum yéen waa baawukum ak seen i baay maa anzalallaahu wàccewut yàlla biyaa ci loolu min sultaani benn lay inal xukmu déet atte ilaa lillaahi muy ñeel yàlla amara digal na yàlla allaa taabudoo bu leen jaamu illaa yaahu lu mooy moom zalika jaamu yàlla daal addiinu mooy diine alqayimu judaa ji jub walakin waaye ak tanaati lépp ci nit ñi laa yaalamoona xamuñu loolu yaa saahiba yi sëñ ni yéen ñaar ñaan rek man ci kaso gi amaa du kuma kenn ci yéen ñaar léegi mu génn fayasqi muy nandal rabbuhu boromam xamran sàngara waamal axar ndaal kenn ka fayaslab def na ko salab ataaku di lekk tayru picc min rasi ci ba ci boppam xuduya atteef na alamru mbir ma allazi mi nga xam ne fii ci loolu tastafta yaa ni ngeen di laa yéen ñaar wa qaala wax la ki nga xam ne zanna joortu na ne annahu naka moom naajin aji mucc la min humaa ci ñoom ñaari gaaya mu ne uskur ni boo demee nag ma tudd ind rabbika fa sa borom fàtte na ko fa lu tol ni xarafi uskur nii boo ko seetloo war naa mat juróom benn wala juróom ñaar mu ne lu tol noonu ci at la ko fa waaj a fàtte ind rabbika fa sa borom faan saxu ñu ne loolu nag ci xaas bu tol ni yusufa ak mooy yàlla la ndax boobu tànkam dafa tarxiis ci mawqifu tawxid ndax xam na ne yàlla fàttewu ko bu yox waa ne fàttali ma fa sa borom te yàllaa ko fi indi yàlla fàttewu ko yàlla ne kon danañ la fi fàtte lu toll ni xarafi loolu nga wax ndax man yàlla fàttewuma la loolu ak njuumte la ci moom gis nga bàkkaaru ab yonent ni mu wuteeg suñu bos ñun suñ bakkaar dañuy def aw ñaawteef ñoom seen bakkaar gis nga ko ni muy soree wax gi mu wax rek ne fàtt li ma ci buur ba rek loolu pour moom dëggum tarxis na faan saaw fàttaloo na ko cheytaan zikra rabbihi fàttali boromam fala bi sa mu sax fi si ñi cee kaso ba bida sinin bidu ci arab mooy ñett ba juróom-ñeent waaye wal xaalibu xajaasi na juróom-ñaar la wa qaala wax na almaliku buur bi nii nii man dey tey ara jënt naa saba baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu duuf yaa yaakuluuna di lekk leen sabon juróom-ñaar ay jaafun yu lapp wa sabu sumbulaatin ak juróom-ñaari gub xudran yu ne tax wa uxra ak yeneen yaa bi saatin yu wow yaa yu almalo yéen mbooloo mi aftoon yi na ngeen ma ubbee firu yaaye sama gént gi in kuntum dem nekk ngeen taaburoona di firi liru yaa ci gént xaalu ñu ne ko adgaasu ahlaamin ceeñeer yaay gént rek ay nelaw rek la yu neex wa maa naxnu den ñun bi taawilil axlaami ci pirim gént bi alimi ni ñu di way xam ko wa qaala wax la zikki nga xam ne na jaamucc na minumaa ci ñaar ñoo ñu tëjoon wa dakara ko ko xalaat baada ummatin ab diir xam naa ko ñàkkam xel la dafa xalaat lu yàgg door a fàttali ne ana man unabbiukum maa leen di solo bi taawili ci li muy firi farsilu na yónni leen ma ñu yónni ko mu dem ne yoosuf ayowa sadiq ay xarit bi aftinaa nag ñu ubbee fi sabi baqaratin ci juróom-ñaari nag simaanin yu duuf yaakulu ne di leen lekk sabun juróom-ñaari ay jaafun yu làpp wa sabu sumbulaatin juróom-ñaari gub xudran yu nëtëx ooxara ak yeneen yaa besaatin yu wow gaawal la aliya ndax man arjo ma dellu ilinaasi ci nit ñi laalum ndax ñoom yàlla mën ñu xam ko xaala wax yusuf ne tasraona da ngeen bay saba juróom-ñaari at daa ban ci baax maanaam ni ngeen doon béyee rek fa maa hasatum lépp li nga xam ne góom ngeen ko fazrohu bay leen ko fi sumbuli ca ca ca ngóod wa ilaa qalilan lu may lu tuuti bi ma taakuluuna ci la da ngeen lekk ko même ci wàllu économique dugub bu bu baree wala bu sakkanee ci guub lay nekk bu nekkee ci saako rek day daal di gaaw a jeex ndax lu tuutee moo xëy cib saako moo tax Yusuf ne bàyyi leen ko ci guub ba ilaa qalil bi maa taakuloon bu ngeen di lekk ngeen bojj su ma yaati topp dikk min baa di dalika saboon juróom-ñaar shidaadun juróom-ñaari at yoo xam yu tar la yaakul na ngeen di lekk maa qadamtum lu ngeen jiitaloon lahu na ñeel leen ilaa qalil lu mooy lu tuuti bi maa tuxsinuun ci da ngeen ñoŋal ko mooy denc su ma yaati dikk min baadi zalik gannaaw loolu amun amat fii ci at ma muy gannaaw gannaaw ñaari juróom-ñaari ñi at moomu nag ma ca topp yu xaasu defi xett xettali naasu nit ñi wa fii ci at moomu nag ngeen di nal nal seen i sàngara ngir naataange wa qaala wax almaliku buur bi ne iitoo iitooni bihi indi leen ma ko fa la maa jaawu ba dikkalee ko rasulu ndaw la qaala mu ne irji dellul ila rabbika ci sa firaw na ma fasalhu laaj ko maa baalu niswati lan mooy mbiram jigéen ña laati ñi nga xam ne xataana dëggoon nañ ay diyoona seen loxo ngir man in rabbi sama borom alimun ku xam la bi kay diina seen pexe xaala mu ne moom firaw na maa xat bu kunna lan mooy seen mbir israawatun na ba ngeen di sàkku yusuf a nafsi ci boppam xul nañu ne xaasha sell lillaay ñeel na yàlla ma alim naa xamuñ ali ci yusuf min sooyun ci lu bon xaalat wax imraatul azizi jabari firaw na jabari aziz mu ne al aana léegi nag xas-xasa lay feeñ alxaqu dëgg ana man tigi raawatu maa ko doon sàkku a nafsi ci boppam way na woo naka yusuf la min assaadiqin bokk na ci way dëggu ya zalika loolu nag zaliqaane zalika loolu nag li yaalama ngir xam yusuf ne ani man lama xunu wurujuma ko bil xëy bi ci faddu gim faddu ba nekkuma fi waa na laa nag yàllit la yaa di yàlla du jubal mukk kaydal xaayinin pexem ñi nga xam ne dañuy wuruj kuy képp kuy wor sam pexe du baax kuy def dara jublu ci wor sa pexe yàlla daf صدق الله من العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله zaliqa nee na wama ubarri'u man duma seetal nafsi bakkan sama ndax inna nafsa naka bakkan la amaaratun digle waa koon la bisoy ci illaa ma lu bakkan boo xam ne raxima yërëm na ko rabbi borom sama inna rabbi naka sama borom xafurun aji bale la mu raximun aji yërëm la wa qaala wax nag almaliku buur bi ne iitooni bihi andil leen ma yuusuf astaxlisu ma jagoo ko li nafsi ci sama bopp falamma kallamahu ba mu waxeeg moom xaala mu ne ko innaka yow al yawma tey la dinaa fi ñun makkiinun ku ñu dara jaal nga aminun ku ñu wóolu nga xaala wax yuusuf ne ijaal nii def ma ala xazaayinil ardi ci ndam bi suuf inni man xafidun aji wattu laa na aji xam laa wa kadalika naka noonu makkan naa la ñu yuusuf fil ci suuf yatabawa u muy wàcc minha foofale haysu yashaaw fu ko neex nusibu danañu jotal bi rahmatina ci suñu yërmaande man nashaaw ku ñu neex wala nudiicu duñu sànk ajaral muxsinin yoolam ñi nga xam ne ñooy rafetal wala ajaru aaxira li nga xam ne mooy yoolub alaaxira xayrun moo gën li léjina ñeel ñi nga xam ne amanoo gëm nañu wa kaanoo te nekkoon nañ yettaquuna di ragal yàlla léegi nag wa jaa adikkanay xotu yusuf mbokki yusuf fa daxaloo ñu dugg alayhi ci yusuf fa arafahum mu xammi leen waxum ñoom munkiroona way weddi lañ la woo ci yusuf way weddi mooy way fakk daal xàmmiwuñu ko wala maa jaazahum ba nga xamee ne yusuf waajal na leen bi jaazim ci seen waajtaay wa xaala mu ne leen su ngeen demee day iituuni indi leen ma bi aaxin ci mbokk lakkum ñeelen min abikum ci seen wàllu baay ala taraw na ndax du ngeen gis ne man kay li ma laaj ñu def ko yelloo naa ko ndax anni man uufi danaa matal alkayla ak natt waana man xayrul munzilin may ngeen ji ku ñuy wàcc ngan fa moom fa in lam taatoo nii su ngeen ma indilul nag bii ci seen mbokk moomu falaa kayla dit benn xeeti natt lakum ñee leen indi fi man wala taqrabuni du ngeen ma jege xaala mu ne sa nuraawidu danañu sàkkuwaanu ci moom abbaawu baayam rek way naa ñun ndey la faa'iluuna way def lañ loolu xaala mu wax moom yusuf lifit li fityatihi wala li fityaanihi ñeel gunem ya ne ijaalu def leen bidaatahum seen marchandise ya fi rixaalim ci seen mbuus yi ñu doon laxas di takk laallahum ndax ñoom yaarifuunahu ñu xammi ko idan qalaboo bu ñu delloo ila alim ci seen mbokk ya laallahum ndax ñoom yarjiuna ñu mën a sawar ci dellu sigi falama rajau ba ñu delloo nag ila abihim ci seen baay xaalo ñu ne yaa baanaa yow baay ñu ndey mu niyaate ref na min naa ci ñun alkaylo am nattu natt farsil na nga yónni maana ànd ñun axaanaa suñu mbokk bin yaamin na nga ko yónni mu ànd ñun su ko defee nag tal nu natt jox ko way naa ñun la xaafizuuna way wattu lañ la woo ci kooku qaala mu ne hal amanukum ndax dinaa leen wóolu alayhi ci gune gi ilaa kala kama amintukum lu may ma leen wóoloo woon alaaxi ci mbokkam ma min xablu ci jëkk te loolu mooy kóolute goo xam ne gu gu manki la fa laahu yàlla xayrun moo gën xaafisan di aji wattu wa huwa yàlla arxamu rahimin moo gën a yërëm képp ku yërëm léegi nag ñibbi nañu fa lama fataxu ba ñu ubbee mataahum seen yére ya wajadoo ñu fekk bidaatuhum seen marchandise yi ñu doon yóbbu yépp ruddat delloof na ko ilayhim ci ñoom xaaloo ñu nga naan yaabana yow baay maa nabxi lan la ñuy sàkkooti haasihi mu ngi nile bidaatuna mooy marchandise yi ñu yóbbu woon ruddat delloof na ko ilay naa jëm ci ñun kon lan lan fii defati wa namiiru dananu jëggal ahlanaa suñ ñoñ wa nax fas nuy wattuwaa xaanaa suñ mbokk wa nazdaad ñu dolleeku kayla baciiri nattab ak gëlëm zalika loolu kaylu natt la yesurun gu yomb yóbbu marchandise delloosi ko sa mbuus fees nga dolleeku beneen sëf loolu natt yomb la qaala wax bàyyi jëne lan ursilahu yéen ti ma ko de maa ko muy ànd ak yéen xataa tu ni lu may ngeen jox ma mawsiqan ndëgër laay mi na laay ci yàlla boo xam ne da ngeen ciy géñ ne la taatun na nii da ngeen ma indil bii ci gune ga illaa an yuxaata lu may ba bi bikum ci yéen falama atawhu bañ joxee góor ga mawsiqahum seen ndëgër laay qaala wax yaqub ne allahu yàlla day wakkilun mu aji seede ala naqulu ca la nu wax ko wa qaala mu ne yaa baniya ee yéen samay doom laa tadxulu bu leen duggee min baabin ci buntu waahidin ba di benn wadxulu duggee leen min abwaabin ci ay buntu mutafarriqatin yi di way teqalikoo wa maa wax nii xam naa ne mënumaa jëriñ ankum ci yéen min laay ci yàlla min shay'in ci dara ndax inil xukmu déet attee illaa lillaahi lu may mu ñeel yàlla alayhi ci yàlla tawakkaltu laa sukkandiku wa alayhi ci yàlla fal yatawakkal na sukkandiku al mutawakkiluuna way sukkandiku ya wala maa daxalu ba ñu duggee min ay so fa digal na leen abawum seen baay maakaana nekkut yox ni di jëriñaanum ci ñoom mi na laay ci yàlla min cheyin dara illaa xaajatan lu moy soxla la woon rek fi nafsi yaqub bu nekkoon ci bakkanu yaqub mu di pexe mum naroon a tëral rek qadaaha mu faj ko wa innahu naka yaqub la zoo ilmin borom xam-xam la lima ma alam naaw ci leen ko xamal walakin waaye aktar naa ci lépp ci nit ñi nag laa yaalamoon a xamuñu woon loolu yusufa ngay xami wante nag ak ak binyamin wala maa daxaloo ba ñu dugg yàlla yuusuf aawaa tapp na ilay ci moom a xaaw mbokkam xaala mu ne ko man dey anaa man axuuka maay sa mbokk falaa tab tayis géje bi dafa yàgg bañ yaakaar ne dee na kon wax ji dafa war a aajo tawkiit moo tax mu ne inni ana falaa tayis bul naagoo bul tiit bi maa kaanoo ci la ñu nekkoon yaamaloon di def ko fala maa jahazahum ba mu waajalee leen bi jihaazihim ci seen waaj taay jaala mu daal di def nag moom yusuf asaqayata naanukaay ba mooy e, ndab la nga xam ne moom la daan naanee fi raxliyaaq yi ca mbuusi mbokkam ma su ma àddana topp yéy ne mu àddinoon aji xamle mu nga naan ay yetuwaali xiiru iyéen njëgg mi innakum naka yéen la saariqoona way sàcc ngeen xaaloo ñu ne wa aqbaloo walbatiku leen waaye alihim ci ñoom maza tafqidoon lan ngeen nemmeeku xaaloo ñu ne ñu ndey nafqidu noo ngi nemmeeku suwa almaliki li nga xam ne mooy muddum buur bi wala potom bi wali man jaaku dikkee na bii ci loolu ñeel na ko ximlu bahirin safu gélem waa na man zayimun aji warlu laa bii ci loolu xaalu ñu ne laqad alimtum xam ngeen ne maa ji naa dikkuñu li nufsida di yàq filaar di ci suuf wa maa kun nekkuñu nekkuñ saariqin di way sàcc xaalu ñu ne fa maa jazaawuhu lan mooy ak payam in kuntum dem nekk ngeen kaadibiina di way nar xaalu ñu ne ji jazaawu ak payam dey man wujida mooy képp ku fekkef na ko firax lii ci laxasam foofu moom jisaaw moo dig payam kadalika naka noonu na jisi la ñuy fayaa dalimina way tooñ ya fa badaa mu njëkkee bi awiyatim ci seen mbuus ya xabla wi ay axi njëkk mbuusi mbokkam ma su ma saxrajaa mu génnee mudduma min wi ay axi ca mbuusi mbokkam bin yaamin kadalika naka noonu ci dinaa la ñu fexee li yusuf ñeel yusuf maakaana nekkuloon yusuf li yaa xuda di jël axaawu mbokkam fi diinil maliki ci diine yi buur boobale ilaan insha allah lu may ba ta neexe yàlla narfa dañu yëkkati darajaatin darajaatin man daraji darajay koo xam ne na shaaw dana neex na wa fawqa kulli zi ilmin nekk na ci kaw jëpp aji xam alimin ku ku gën a xam yusuf nag ma ngay waxtaan ak mbokk ya xaalu ñu ne ko in yasriq bu sàccee day faqad saraqa sàccoon na axun mbokk la woo ñeel ko min xablu bu yàgg magam da daan sàcc fa sarraha nëbba yusufa loola yusuf fi nafsi ci boppam rek mu téye wax ja walam yub diyaa feeñalu ko lawum ñeel leen waaye xaala wax na ne antum yéen dey charun yéen a yées makaanan ci béréb wallaahu yàlla alamu moo xam bi ma tasifuuna li ngeen di melal seen làmmiñ te amut xaalo ñu ne ko yaa ayu al aziz ey yow premier ministre bi inna la woo naka ñeel na ko aban baay cheikhan muy mag kabiran bu daay ji magge faxud jajjalal adana kenn ci ñun makaanoo ci bérébam innaa ñun raka dana gis la min al muhsinin nga bok ci ñi rafetal qala muné ne maadallaahi man dey maa ngi musli yalla an naaxusa may nuy jàpp illaa man lumay ko xamne xam fek wajan naa fekk nañ mataana ay ay yére sunuy indawo mom moom ñun izan buñ jëlee ko xamne barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan